ndax yow la yàlla wóolu yaa di soppeem koo jubóol la wóolu bay laay mbaa xam na ba tax mu naan lu ngeen am ci wu jëlle ma bokk ak yéen may am borom bi joxe cër yi moom jëlalu ku baax kii ku gis ku gën kii jëlalu ca baay moo kii Muhammadu Rasulullah mooy jaam bi gën ñépp te mooy maam li maam laay mi fen woo ñépp fen na ba dem bàyyi loog baab bi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 doffakagum ci ay at ginnaawam seydi mam alasaana doon na yenam te doyloo rakam ja baay abdulaay mi ñépp gërëm ñu ñaanal baay mu yàgg fi te am wér defal ko jabootam te arle ko tool bi fépp leer samam waxoon ay jaraafam di koy di siiwal wooteem bi ndax moom la la faral siiwal nga woote bi tey yaa doon xalifaam na ñépp a ñaanal ko bu yàgg weer bari ndam bay Abdoulahi yaay cëru diine la xam xam baay yow tay boole ñoñam bàyyi dundaloo bàyyi dundaloo maam dundaloo loo dundin mu doon jëriñ sunu xol yaa ci fees yaa nu digal lu ñuy jëriñ subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuuna wa salaamun وعلى آلي وأبي وأمي وزوجتي وولدي وذريتي وسلم تسليما وعن ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين